ci lan nga nekk. maa ngi rek. dama ñëwoon ci open press nga ne ma jeexee dama tontu. wala da ngay tontu sénégalais nga bëgg a tontu wala kan nga bëgg a tontu. damay tontu Boy Niang si li mu waxoon rek. lan moom waaw. ndax moom dañu woon ñun daf ñuy daan daa benn kaasu fonde du ñu ko jox ma ne la woon après buñ bëree ba pare dinañ xam kan mooy naan kaasu fonde bi te tey li ma la waxoon moo am moom moom Boy Niang moom moo naan kaasu fonde bi. yow tey ci ki laa bokk. ñu jàppale ci comme saa bu bëri dañuy ñëw. jàppale ko chaque combat dañuy jël bu pour ñëw bu combat bi jàllee dañuy continuer suñu liggéey. bu combat bi desee un ngeen di jël congé wala bu desee ay deux mois. non bu desee ay un dañuy ñëw. bàyyi liggéey bi ñëw jàppale ko bu daanee rek ñu dem. tey àdduna yëpp doon xaar xeex bëre bu neex làmb yàgg trop yàggaay làmb bi mën nañu xam lu ko war en tant que non il faut mu yàgg. ak ñaari mbëri Boy Niang bëriwul dafa taxaw moom moo soxla woon comme la ma la waxoon keroog nee naa la booy Niang moom moo soxla moom mooy ñëw moom ñëwul ñu dañuy taxaw di ko ba mu ñëw loolu moo tax rek mu yàgg nii mais moom moo soxla moom moo waroon ñëw moom mooy xale moom moo ne moom xale la ne ay mu ne moom dafa jël la degeer te moom ñëwul moom lañ doon xaar ñëwul ñu dañuy taxaw di xaar rek ci biir waxi Boy Niang nee na Lac de Guiers taamu na match nul. non yaayil Boy Niang ne Boy Niang du match nul ñun dañ ko daan. mais ñoom match lañ ko jàppee. non déggoolum la waa Pikine foo romb ñun dañuy jóge ñëw ñibbisi waa Pikine dañ ñu doon tàccu ñoom ñëpp dañu doon tàccu. ñoom xam nañu ñoom dañ leen daan loolu moo tax mu wéet instant bi soo demee leen jël dañoo wéet dañu dañuy feetu suñu victoire. même démb ñu ngi koy feete fii démb fii dafa xumb. tey wax sa mbër bi di nga xamante mbër moom amul dara lu mu koy wax ndax dafa baax dafa yaru ñëpp nga koy wax mbër amul benn problème soo déggee am na ay nit sax ñu ngi ko boo yi ngay àndal ñun mbër contre Babacar Diallo ba ti bi muy soog a bëre ba léegi ñun lay àndal suñu borom di ko si may ndam mais saa boo génnee ñu ne xale yi muy àndal dafa war a am en. ay nit ñu mu war a ànd ay mag non non lay àndal ba ba muy bàyyi bëre te mbër nekk lu warkat mbëru soo soo gëjee ñëw sax day ñëw ba si yow ne ba bàyyi laa la def kon mbër ñu dañ koy jàppale yàlla may kon dem mu am roi des arènes ñun loolu dañ koy ñaanal ci kàttanu yàlla. ni la. bu baax. lan moo tax. man mbëru su ma sañoon suy bëree day teg kaasu ataayam di ataaya ba 6 heures. <laughs> <laughs> mais loolu est que amateur dañ ci kontaan. non déggoo lu la saa bu paree ñu kontaan moom ndax ñun dañuy daan. nee nañ la moo nekk mbër boo xamante ne euh, kenn du ko daan mais bu saa bu la jekkoo daan bu la bëggee daan daan la. mais man xam la moo tax kii neex ma Père Birame Ndiaye saa boo waxee mu ne la dëgër mooy mbër mu mag ndax moom bu la jekkoo dalay daan yow soo ko jekkoo mu tëj sa sa bëre. keroog noo gis na noonu lañu waroon bëree diggante moom wax Boy Niang. non comme ni mu bëree rek booy Niang lan lay xaar day ñëw am lu muy lal yow nga ñëw sonk mu rek mu juum rek nga juum mu daan la mais moom daa xam ni la degeer ay curux carax du ko daan la degeer boo ko respecté wul doo ko daan bi ñu Eumeu seen di daan Eumeu seen da ko joxoon cër bu mag sët da ko joxoon cër loo moo tax mu daanu mais. ku ko joxul cër si làmb ji bi muy bëre Papa Sow Papa Sow dama ko romb Abbas Ndaw Sam ma ne ko bul jël la degeer ñu toogaat ay ba combat bi jàllee ñu toog un mois ma gisaat ko ma ne ko papa la laa la waxoon mbër soo ko bëggee daan da nga koy jox cër mais booy ñaa joxul la degeer cër. ci bon côté. non joxu ko jox si lépp si waxi nag ba ci stade beeg yëpp joxu ko cër. yow instant yow soo taxawoon. rek nga xool li li booy ñaa indi yëpp te xam nga ban combat la ma doon jox guy gi Siteu guy gi Siteu la ma doon jox mais dafa joxul la de cër moo tax. ci stade bi lan la doon def ñu gis ne dafa indi confiance bi nga xamante ne dafa dégg dayo moom booy ñaa. bu baax booy duñ ko dee ak boo déggee li papaam waat wax yow da ngay ni sax booy ñaa suñu. suñu suñu borom da ko dénk wax ko ne da ngay daan. combat bi boo ñaatee ba mu war a wax ci lan la teg ne dafa war a daan Lac de Guiers ci mystique la ko teg wala ci xeex wala ci xam-xam. moom nee na moo dàq xeex la de Guiers ñun keroog gisuñu ko mu dóor de ñu ne moo ñu ëpp mystique ana mystique am bu sottee ko day wow kon booy ñaar amagul mystique. <laughs> bu sottee ko day wow. day wow day wow du tooy moom saa bu sottee ko bitel day day wow comme du tooy. wala moom lu mu daan saa kees moo tax mu ne xaaral ma dem jëli lat. xam naa loolu li mu daan saa kees moo tax mu ne ma dem jëli lat. maanaam kon ku mënta daan la déggee mënoo jël Balla Gaye ah noo koy jëlee Guédiawaye ñaar la Lac de Guiers Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 Lac de Guiers moo fi nekk de. damay ñaan waa Géejawaay ñëpp nekkaat benn mbër yëpp ku ciy bëre na ñëpp a ñëw ba ci combat yi ndaw yi képp ku ciy bëre ñun ñii di ànd ak Lac ak ñëpp dina ñëw ba sa jàppale la suñu borom may la ndam. ci nu fondé bi <laughs> moom dañuy inu fondé ñun mu xam si lañ ko tegal. te moom lay naan après. Mm. Mm-hmm. maa ngi lay jaajëfal. incha allah. merci beaucoup ñaamu Géejawaay ñu gën ko xam ci Pape Maguette alias ci lan nga ci jàmm kontaan mbég. indi leen ndam ñu gis bi nga bëree ba tey déggaatuñu ci dara combat man comme li ma waxoon rek bi nga ñëwee li ma la man bëreewutuma ak benn xale. léegi na mbëri mag yi ñëw ma bëri. mais promoteur bi ñu lay contacter. promoteur waaye ñu may am ñu may arrangé wu ñu. ñan ñoo la arrangé. non ñu may arrangé ma ah? arrangé bëri na yow xam nga samay adversaire ci làmb. mais tungu bëri na. bëgg a bëreel. ñan laa bëgg a bëreel ñoom Coen a bëri ñoom. ñooñu nen ñëw ma bëri ñoom. budul ñoom. budul ñoom ma bàyyi bëri dem defi leen. est-ce que bàyyi bëri na man lamb après aw ma si lenn. à part ñu gis ne te eh, naka nga victoire am na moom loolu moom CNG seen billaay wallaay wa taal mardi la dëggee jot victoire ci kàttanu yàlla. parce que làmb lu ne fànn kenn du ko jeex. bu ñu ko bu ñu ko jox ñun ñun feete nañ suñu victoire ba pare bu ñu joxee bu ñu joxul daan nañ ñun xam nañ ni la dëggee daan na ko jël bu leer. yow làmb ja ku fa nekk rapporteur yi doon wax sax xam nañ ni la dëgër daan na mais après bi arbitre yi ñëwee ba def leneen ci lañ doog sax ñoom arrière. kon maanaam la dëgër feree na booy ñaar. la dëgër daan na booy ñaar loolu jëratul wax. feree na ko waaw. waaw ah bañ a ñun lii rek lañ bëggoon. maanaam bi damm la dootul dugg. non waxuma la siège bi damm mais siège bi amatul tànk. waaw en plus tamit maa ngi nuyu mbër yi nekk géejawaay mbëri yi ndaw yi nekk géejawaay géejawaay suñ booloowee kenn attanu leen waaw di wax ni li ma sama waxu démb mooy sama waxu tey géejawaay ñaari mbër a fi nekk ñooy mbër yu mag yi Balla Gaye 2 la Lac de Guiers ñun ñu si des nag ñu ñoo topp seen ginnaaw te nangul leen ko waaw ay guy gi topp si ay Sa Thiès topp si ñeneen ak ñeneen parce que tamit àdduna loolu la quoi njiit yàlla da koy def loolu kenn mënu si dara mbooloo boo gis yàlla sàkk na kenn koo xamante ne mooy nekk njiit nga bañ ko ak nga nangu ko loolu moom mooy nekk waaw te ñi li ñu doon nag ñoom yàlla leen si yàlla jàppale ba nga xamante nii xam nga ñu nekk si lu mu ñu nekk si ay roi des daal bañ ba doyal jox seen rakk yi si kàttanu yàlla. tey jii ñu gis keroog ambiance bi stade neex na trop mobilisation waa Guédiawaye. Hmm. tey xaar xeex. léegi nee mais nit moom man li ma gis mooy nit moom su la nit neexul neexul la mais keroog lu am làmb ji billaahi wallaahi wa taala sama diggante lay wax su booy ñaar defoon lu defoon dara si làmb dama la lii la def mais lu am si làmb ji la dëggeere ko def billaahi wallaahi wa taala booy ñaar bi mu duggee ci la dëggeer ba génnaat ci la ci la doyal sëkk ci làmb ji billahi wallahi wa taala. maanaam da am xam na lim fu fekk. est-ce du loolu gis nga làmb. làmb li ma wax sama waxu démb mooy sama waxu tey làmb soo bëree ba ci kaw te boole woo ci Malick Niang boole woo ci Tafatim sa palmarès des na. mais des fois la dëgg ñi wax ñooñu xamuñu làmb. Lac de Guiers da ngay ñëw contact nga ñëw fekk ko muy bëre wala nga ñëw feneen ñëw fekk ko muy bëre c'est dafa am ñoo xamante ni Lac de ci làmb lañ ko xamee mu ñëw bëre si arène bi lañ ko xamee mbappatu Lac de Guiers gisuñu ko man ak moom bokk na ñaari jour na mbapat mu bëre grand combat ma bëre avant grand combat mbapat waaw mais Lac de Guiers combat yooyu matul cinq minutes billaahi wallaahi wa taala benn Papa Ndiaye dënn la daan mi ngi nii duma bàyyi ma nee nañ day machine waaw machine machine dafa am ñoo xam dañoo bëgg ndam mbër yoo xamante ni defet am defet kenn bëgg ko nga déggee day ñëw teg làmbam ci yoon calculer xool li làmb laaj mu def ko parce que loolu rek mooy làmb maa ngi nuyu kii mbër boobu ancien mbër boobu per Birame Ndiaye parce que ku xam làmb la ku xam làmb la lu mu la wax si làmb du deñ voilà parce que lim ne seen mbër li nekk ci moom it loolu lay mbër. non Père Birame Ndiaye champion la xam na mbër Père Birame Ndiaye bi muy bëree matul soixante di kilos. mais gis nañ tamit Père nee na euh, Boy Niang dafa waroon forcer maanaam dafa yéeg na ba ci fana ba ba ci kaw bëri na ak ñi ñi wax ñooy mbër yëpp Lac de Guiers bëri na léegi booy bi di man li ma gis Balla Gaye bi muy yéeg bi ñu ko joxee yéekin daf ko daan. Lac de Guiers bi muy yéeg bi ñu ko joxee Yékini daf ko daan kon ça diir dire mooy am na loo xam amateurs yi kenn mënu leen nax. maanaam kon Boy Niang dafa waroon wane boppam ci combat bi indi yow Boy Niang bu doon daanu sax dafa waroon ñëw wane fulla wane fayda ñëw ba fu Lac nekk mu fekk ko fa xeex ak moom bëreeg moom wax lii may wax waxewu ko pour jaxase pour dara mais Ama Baldé soo gisee làmbam isam lu la man ma gëm ko moom su arbitre ne prib day ñëw ñu ne ngeen rànkum daje. bu dee xeex ngeen xeex bu dee bëree ngeen bëre. mais làmb maanaam boo ñaan li nit ñi doon wax ne wax ci moom loolu la nekk si moom. loolu musul nekk si moom benn loxo lay xeexe soo ñëwee làmb ji soo ñëwee dem côté bii du day am problème si làmb ji. jàpp mun nañu xaar yow Pape Mag yow Maguette. Hmm. alias Boy Niang 2 ak Boy Niang ah yow man de billaahi wallaahi wa su ma amoon jàppale comme ni nit ñi vingt six combats laa bëre boo yi gën a dëgër maa leen daan làmb nag tamit is am lu ma man ci ay combats maa ko njëkk a bëre te moom man bañu ko moom moo njëkkee loolu damay bëri ak ak ki dëkk caaro yi nu mu tuddati Euh, kii. Colifay Colifay papaam indi ay butéel dem jox kolifay conseil Colifay. dégol sama bët moo ko gisul woon sama bët moo may booy ñaar di rapporter si télé may bëre ma daan muy wax Maguette Seck tudd sama tur kooku di nga tudd turam te am prise tamit muy bëre koo xamante ni suma xarit la suma lépp la. ñu ne ko foo ko teg mu ne fu yomb laa ko teg. fu yomb la ko teg moom ay géntam la wax. mais billaay wallaay kuy bëri la dëggeer teg ko fu yomb ndax nga say mbokk. nga dëggeer sooy bëri moom di nga ko respecté benn di ngeen ni matuwaay yu leer indi ay argument yu leer. waaw waaw. gars yi na ci mystique lañ ko teg. non ba mystique lan lamb ji ñëpp xam kër yu baax yi. kër yu baax yi ñëpp a ko xam xam lan rek moo fi nekk. ku yàlla jàppale. mais kër yu baax yi ñëpp a ko xam. Euh, <laughs> waaw Maguette ba doo war a Lirou ak sa mag ak Lirou ak eh, ki nga xamante ne mooy wulli tey combat boobu waaw combat boobu dina neex trop parce que combat boobu ñëpp a koy xaar am na enjeu am na coow waaw di ñaanal eh, sama mag yàlla may ko ndam te tamit. làmb la rek daal làmb lay doon rek. comme làmb liiru li muy wax dafa dëggu ci moom rek. liiru man suma mag la mais jikko bu jikko bu mu yor sax man yoruma ko man gaaw ma dugg ci nit te liiru moom bu la xasee ba bëgg bëgg na la. liiru noonu la mel bi muy nekk xale ba léegi au passage maa ngi nuyu sama grand frère Abdou Diouf. waaw combat boobu ni bu moom. ba liiru dese na ko lu bari ci làmb. liir dese na ko lu bëri liiru des lii liiru 40 ans lay doog a am xaw ma 28 ans. xaw ma 38 ans wuli nee na du waaw loolu nag ñoom ñaar seen signature la signature moom moo demee ku si nekk li ngay déstabiliser sa morom rek loolu ngay wax waaw. di la fay di nuyu waa géejawaay gi yëpp.